delloowaat njukkal bu baax a baax a baax toute la jeunesse de Kaël par rapport à l' esprit fair play bi nga xamante ni wane nañ ko à ce tournoi di leen remercier bu baax a baax ci li nga xamante ni wane ngeen ko ci yar ak teggin devant nos autorités en euh, euh, l'occurrence monsieur le sous-préfet monsieur le maire euh, de la commune de Kaël ñu leen ciy delloo njukkal bu baax a baax di wax ne lii dañ ko defoon rek juste nañu xam ne ci ay fête la ñu nekk la majeure partie des jeunes ñenn ci ay élèves lañ ñenn ci ay étudiants lañ ñenn ci c'est des enseignants donc c'est c'était logique ci par rapport ak euh, fête bi nga xamante ni amoon nañ ko ñoo organiser une petite tournoi pour faire revivre li nga xamante mooy une petite ambiance durant les fêtes de de de Noël loolu moo taxoon ñoo amoon initiative organiser cette tournoi finalement mu nekk une grande tournoi boo xamante ni lépp tey bu yembee ba lii mel nii bés bi taaru mel nii c'est grâce à monsieur le sous-préfet de Kaël que je vous demande de l'applaudir amplement emplement il mérite il mérite un grand un grand applaudissement tàccu leen ma monsieur le préfet bu baax baax a baax baax baax a baax monsieur le préfet monsieur le préfet ma wax ne lii guleet la mais jàpp naa ne bu ñu wàññi bokk na ci li nga xamante ni jàpp nañ ne bu nekkul benn tamit mën nañu jàpp ne bi mooy ñaareel bi loo xamante ni ñu am ko ci un préfet boo xamante ni ñëw na yàgg fi même pas un an mu am une collaboration parfaite avec la jeunesse mu am une collaboration parfaite boo xamante ni tey lépp lu nga xamante ni jeunesse bi soxla nañu ko mu ngi nii à chaque moment dañ koy woo. que muy ngoon que ce soit muy guddi muy bëccëg mënoon na wax ne c'est une autorité étatique la il représente le président de la république mais à chaque fois bu ko woowee il décroche téléphone mu wax ñun li bëgg a wax moom donc loolu dañ ko ci remercier encore une fois ce tournoi c'était une courte durée mais ci durée bu gàtt lañ ko ko wax mu jël toutes les dispositions nécessaires tey mu jox ñu la nga xamante ni ñun dafa dafa sàkkawe suñu njort mu construire ces blousons yi nga xamante ni tey ku ci nekk xam ne ne blousons yi am na coût mu jox ko li nga xamante moom mooy comité d'organisation bi tous ces jeux de maillot mu génne ko pour li nga xamante ni moom mooy le finalistes ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon ci tournoi yi génne des enveloppes également mettre ko à la disposition à la euh, au conseil communal de la jeunesse pour accompagner ci li nga xamante ni moom moo di final bi donc monsieur le préfet gàcce ngalaama jërëjëf toute la jeunesse est reconnaissant et toute la jeunesse est fière d'avoir un sous-préfet comme Mayoni lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax di wax ne à toute la jeunesse je fais un appel à tout la jeunesse encore une fois ñu am ay royukaay yu mel ne le monsieur le le préfet mais am ay royukaay yu mel ne monsieur le maire. nous sommes une jeunesse nous sommes une jeunesse très engagée nous sommes jeunesse très mobile li ñu dese moo ñu nekk une jeunesse boo xamante ni c'est une jeunesse soudée pour l'émergence de notre chère localité muy Kayel comme le préfet l'a déjà di ci suñu lakos yi nga xamante ni defar nañu ko pour une Kayel émergent donc j'appelle à tout la jeunesse encore une fois ñu gën a mobiliser wu gën a nekk benn. gën a jàppoo pour que fi ñuy dégg léegi communes yi nga xamante ñoom ñoo nekk au niveau du Sénégal tey ñu mën fa dégg li nga xamante moom moo di commune de Kayel am nañu xam-xam bi am na ñu mën-mën bi am nañu kattan bi donc l'union fait la force on appelle à cette mobilisation à toute la jeunesse de Kayel pour que ñu nekk benn jàppale monsieur le maire par rapport ak li nga xamante ni moom mooy quinquennat bi nekk ci kanamam liggéeyam gën a yomb bu ko defee tey lépp li nga xamante ni lu war a yegg si ci biir Kayel la en l'occurrence par rapport ak le monsieur le maire ak monsieur le préfet bi nga xam ne moo fi représenté l' état du Sénégal ñu mën ci taxaw ba lépp li nga xam ne jeunesse bi war na ko jot jeunesse bi mën ko am ci li nga xamante ni moom moo jëm ci commune bu Kayaar. monsieur le sous préfet bi muy commencé ci ay activités am laa xamoon ne lii bettuñu parce que bi muy commencé la woo la jeunesse de Kayal toutes les huit communes mu woo leen ci la salle de libération de la commune de Kayal mu ne leen dama bëgg jeunesse bi nekk jeunesse bu jeunesse bu engagé wu jeunesse bu insportif ndax jeune fu mu nekk dafa war di fo. kon nag désormais na jeunes yëpp affluer ci ODCAV bu ñu mënta affluer ci ODCAV ñu wut suñ zone bopp di ci jouer loolu moom moo ko initié personnellement fu mu nekk daf ko doon def kon mu ne daf ko bëgg a commencer kayal kon euh, le sous-préfet bi mu commencé loolu rek la ñu xamoon ne kon kii moom vraiment am na une parfaite collaboration avec la jeunesse te loolu kon loolu c'est à saluer parce que ni ko président Ibrahima waxee léegi c'est pas une première mais lii tamit vraiment euh, c'est saillant activité bu mel activité bu mel nii le préfet bi nga xam ne bi fi ñëwee léegi markee gu fi même pas benn temps organiser fi lu mel nii en parfaite collaboration avec la jeunesse vraiment c'est à saluer euh, bi si topp mooy la jeunesse de Kaël lii moom c'est un bel exemple à suivre euh, commune yi nekk si arrondissement Kaël yëpp war nañu def nii parce que jeune dafa soxla di s'épanouir di daje di def ay activités euh, kon jeunesse fu mu nekk moom mooy doole yi fa mu nekk mooy doole dooley goxam kon euh, jeunesse tamit nekkul loo xam ne ni dafa war a ñëw di acti def ay activités sportives ak culturelles kese na jàpp lépp li nga xam ne nii c'est un travail bu mu wala bu lépp sous-préfet war a def ci arrondissement bi mu ànd koog sous-préfet surtout moment yi ñu toll avec l'insécurité la jeunesse dafa war a nekk un pas si loolu. lépp loo xam ne nii mi ngi koy def avec la pour la sécurité des population mu jàppale ci la sous-préfet lépp li nga xam ne nii ay liggéeyu sous-préfet soxla ci commune yi mu jàppale ci sous-préfet ñu jàppale ci sous bi parce que euh, commune àll bi dafa xaw a naqaree organiser kon la jeunesse il faut ñu ñëw jàpp ci jeune dafa war a nekk loo xam ne nii moom mooy doole réewam fu mu nekk activité yu fa nekk ñoom ñoo ko war a organiser surtout ay activités de citoyenneté li ñu soxla ci Sénégal instant bi mooy la jeunesse di organiser ay activité de citoyenneté surtout des sensibilisation parce que réew mi dafa toll foo xam ne di il faut ñuy sensibiliser ndaw ñi il faut ñuy sensibiliser la population pour que ñëpp am une action de citoyenneté ñëpp nekk ay ay citoyens loolu kon bu dee am ci arrondissement yi dina neex sous-préfet bi nga xam ne lii tey moo organiser lii parce que lii bu ko commencé rek mooy tàllal naa jeunes yëpp loxo mooy waral tey jeunes yi bu ñu amee ay soxla di ko discuter moom ñu tracer benn euh, ñu tracer benn TDR boo xam ne dina permettre toute la jeunesse maintenant di travailler ci seen dëkk ci seen localité euh, pour xam ne ñoom ñooy njariñul dëkk bi ñoom ñooy doole seen askan. di saluer encore le président Ibrahima moom vraiment depuis son installation euh, chaque fête de la jeunesse moom il est il est donc kon avec la jeunesse de Kael vraiment lii moom lu rafet la. dinaa ko euh, jàllale fépp kayel gi nga xam arrondissement yi bi ma jiite dinaa fexe ba commune yëpp di def exemple di def activité yu mel nii parce que loolu vraiment lu rafet la lii jeunesse bi daf koo soxla lii tamit day tax jeunesse bi ak autorités locales yi gën a jaxasoo parce que dañoo toll ci jamono boobu il faut ñuy jàppale suñu suñu autorités yi nga xam ne ñoo nekk suñ suñu localité yi buñ ko defee rek yaakaar naa lépp luñ bëgg a liggéey suñu gox yi dañ ko liggéey. donc di féliciter bu baax vraiment le comité d'organisation monsieur parce que ren comme ni ñu ko xamee quand même on a passé une année blanche donc ils ont eu quand même l'intelligence et vraiment les disponibilités au moins durant ces jours de fête ñu yëngal dëkk bi vraiment je crois que ça a à la jeunesse de décompresser donc merci au comité d'organisation monsieur le sous-préfet toute ma gratitude d'avoir accepté d'accompagner ma jeunesse notre jeunesse donc vraiment je vous informe Le sous-préfet Mayoni Sarr, ce n'est pas parce que je suis enseignant, mais je crois que les enseignants ont ce fort. Car ils, sont, ils savent comment yéen les groupes. Même au niveau des maires, c'est le même jeu qu'il est en train de faire. Et dit, vraiment au niveau des huit communes, je dis ne faute. Quand nous tapons, ni nous défendons jeunesse, nous mag mi Donc, monsieur le sous-préfet, merci encore une fois. vraiment lii mooy wane dëkk bi nga nekk saf na la parce que mën nga ñëw yow dong ah mais vous n'avez pas besoin de déranger toute say doom say soxna ngeen leen ñu toog fii vraiment vous aurez dû quand même venir seul à part problème on aurait compris mais lii wane ne mbir mi soxal na la mbir mi jàpp nga dëkk bi da nga jóg la nga lépp nga daale muy jabar doom loolu que la kon nag ba pare nag indi sa alal joxe waale kon monsieur le préfet merci encore une fois en tout cas lii day wone ne état nii lay war a doxee donc ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci lii nga def nga xam ne ñun nga ko defal man nga ko defal parce que yaa ci commune Kaël mais aujourd'hui Sow laa di vous l'avez fait pour toute la jeunesse l'arrondissement de Kaël mais c'est parce que aujourd'hui Kaël nga nekk donc monsieur le sous-préfet jërëjëf yàlla na la yàlla jàppale en tout cas nit ku baax nga parce que nit ku baax mooy nit kuy wax ak nit nit kiy dem ci nit ñi oyof comme ni ko Ibrahima waxee léegi gannaaw yéen a koy woo fu ngeen toll jot ko kon rawatina ñun donc je crois que amul kenn ku naan la woo naa su fekkee jotuma ko donc je crois que là loolu lépp ay jàppale la en tout cas di leen sant di leen gërëm je le na ne pas la parole parce que aujourd'hui vraiment je voudrais être la seule population de Kaël toog di sant mais toog nañu ma ko ma wax la daal jàppal ne lii ça nous va droit au cœur monsieur le sous waaw donc di féliciter je crois que yaakaar naa xëy na Thiaw mi nga xam ne mooy vétéran bi moo yoroon xon yi moo tax xam naa ñu gagné mais xale yi moom vraiment ils ont très bien joué vous n'avez pas démérité mais du fait qu'il y avait Thiaw maintenant et tout ce groupe là derrière avec seeni xon xam naa ñoo tax xëy na au niveau des pénalties am lu ñu rate mais quand même félicitations aux vainqueurs encouragement au vaincus. Ce diplôme de reconnaissance à euh, Monsieur Mayoni Sarr, sous-préfet de l'arrondissement de Kael, pour ses rendus à la jeunesse. En foi de quoi, ce diplôme lui est pour tous les honneurs. Le conseil communal de la jeunesse de Kael vous merci à monsieur le préfet. monsieur le préfet yooyu jeunesse bu Kael moo la ko jox tàccu vraiment dañoo kontaan ci yow xëy na mënuñu def sax li ñu bëggee. damay nuyu waa Kael yëpp bi mu bëri nuyu duñ nuyu toute la jeunesse particulièrement li mu nuyoo waa Kayel mag ñi ak ndaw ñi nag berel spécialement nuyoo tout la jeunesse di leen gërëm di leen remercier di leen wax ni lii c'est une fête pour la jeunesse et dama ko def ndax di ngeen ma ko pare ne yéen man awma lu ma leen di wax lu dul sant leen gërëm leen parce que nit bu yëkkatee teraanga jox la ko mënatoo koo fay donc man lu ma ci def xeem naa ko li ma ca def lépp nag yéen a nga koy naw mais du dara lu dul sama maire yi ñoo ma jàppale waaw monsieur El Hadj Ba ak ay mbokkam ñoo ci dugal seen loxo nu ba ngeen ma ko tëyee dama leenoon noon du ma Cheikh Bara du ma Ba ko xam naa ne moom du ngeen dundalee loolu laa leen waxoon du ngeen dundalee ndax du ma Ba du ma monsieur le maire du waa nag yàlla def na dugal nañ seen loxo ba mu toll fii mu toll kon ma di leen gërëm di leen remercier mm, di wax ni rek man ak sama famille kontaan nañu waaw toute la famille kontaan nañu parce que ñu ngi nii accompagnement man ak samay xarit kontaan nañu Malick Mbaye mii année témoin man ak samay collaborateur kontaan nañu Abdoulaye Sow mi ngi nii conseil d'arrondissement de la jeunesse ak sama xarit bopp yi xam dama leen a am biir Kayal ñoom Assane Sow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen su ma limee ma jum ak docteur tu as vu docteur Abdou Khadre yen ñëpp maa ngi leen di gërëm wax leen ni leen jeunesse bi man li ma leen waxoon dem sama bureau rek moom laa leen di wax dama leen naan allons on va voir li ci kanam rawuli bët nan dem ci kanam voilà wala leen wax appel boobu laa leen lancé parce que seen taxawaay rafetlu naa ko parce que nit amul lu dul dëkkam nit amul lu dul terroir je vous appelle à la construction de notre terroir Kayal loo rek laa leen di woo woowu mën ca leneen j'incarne la mission du commandement territorial mais j'incarne la représentation du président de la République ci loolu yéen ñëpp la tàllal loxo pour lan pour ñu tabax li ñu am lii rek la am amuñu leneen man tey Sénégal li muy rëy rëy arrondissement Kelle rek ma ñor arrondissement Kelle yéen fi nekk keneen newu fi donc je suis là avec vous waaw n'hésitez pas li ma leen waxoon démb su ngeen ma soxlaa amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon je suis à votre entière disposition yéen itam la même chose je n'hésiterai jamais à faire appel à vous en cas besoin parce que xam naa ne vous êtes une jeunesse une jeunesse républicaine, une jeunesse engagée, engagée à la cause vraiment du, terroir, à la cause de la commune et de l'arrondissement. Donc, ce que je veux je les remercie. Ce que je wax dire, je suis très satisfait, je suis très ému. Mais je veux dire, on va aller de l'avant. Une enveloppe de 50 000 pour le, la finale, la vainqueur et le vaincu. J'ai un trophée. Préfet, la Nenen Lagachengalama, Djaradjef. monsieur le préfet a jarama monsieur le préfet minen kahel naaɓe min beltanimama weltare ari e ɗo ɗo kahel min beltima haɗa heltade haaɗi vraiment merci monsieur le préfet merci encore merci encore merci monsieur le préfet donc pour ne pas monopoliser la parole dañuy dem directement remise des prix félicitations ak le trophée am na jeu de maillot plus le trophée et une enveloppe. Félicitations. Merci.